mu nekk ab bés bu neen ci askan wi nga xamante ne ni ñoo ñëwoon fii ci centre ville ngir dox seen ay soxla ci avenue Pompidou nag ñu nemmeeku ay sénégalais yu toog daal di njàpp seen jàmbur ay boutique yu tëj ñeneen ñi moom ñoo ngi daal di ubbi di am yaakaar waaye ci askan wi nga xamante ne ni ñoo ñëwoon foofu ngir dox seen ay soxla ñoom dañoo daal di wàññeeku seen journée daal di neen. mu nekk yaakaar gu tas si ñoom. dama ñëwoon di amoon rendez-vous fii mais ki ma amaloon rendez-vous tey mënu ma gis dara si bitigam bi nga xam te ne dama waroon ñëw jël ay mesures pour defaral ko ay liggéeyam mais bi ma ñëwee li ma fi fekk à ma grande surprise mooy lii moo lay wan kon lii bokk lii jaarul jarul yoon lii jaru ko lan moo fi jar forcing bi nii bu doon loi bu normal la je pense pas sénégalais yi dinañ génn nii nga jël policiers yi tourner. Euh, ville bi yëpp ba kenn mënul dem fenn lii wax dëgg yàlla c'est du honte lii moom gàcce bu mag la gàcce bu mag la ci démocratie Sénégal. d'abord déplacement bi euh, déplacement bi dafay metti ensuite il euh, y problème de sécurité donc beaucoup de services son off et comme ñun suñu liggéey c'est lié à l'administration. Euh, dafa handicap bu rëy rëy la indi ci ñun quoi quand même franchement. si bërëbu fajukaay bi di poste de santé municipal de Sandial nekk si avenue Pompidou foofu liggéey ba doxul ñenn si ñi nga xamante ni dañoo tawatoon ñëw bëggoon faju dañoo daal di ñibbi mu nekk li nga xamante ne ni liggéeykat yi nekk foofu daal di ñu koy ñaawlu bu baax a baax. apparemment nekkuñu si jàmm parce que les gars ils tirent n'importe comment dañuy tirer rek. fii depuis saa ñu ngi dóor. poste santé Sandial fii mooy poste santé Sandial. moo nekk Ponty angle Bayeux moo nekk Ponty angle Bayeux vraiment c' est difficile am na ay malades yu ñëw ba dañuy daw tant am na malade bu daw ba faxasalu parce que ça pose problème yi nag feneen la concerné feneen mais suñuy dóor aussi ñu xam fa la ñuy dóor comme ça nit ñu mën nañu ñu ngi ñu ngi leen di sànni xet gi di ñëw si ñun amuñu ñu ñuy def franchement parler affaire bi métti na fu métti di yem man loolu laa am si lu may wax parce que war a liggéey te liggéeyuloo nga jóge sa kër. jóge ay kilomètre kilo ñëw fii ne yaa ngi liggéey yaa ngi daan sa doole ñoo ñëw fekk fi lii métti na. si kaw loolu ñenn si Sénégalais yi jàpp ni gouvernement bi dafa war a woote ñu daal di toog gën a waxtaan ngir rek indi saafara ci li ni mel. acteurs yëpp dañu war a toog waxtaan parce que waxtaan mooy tax lépp sotti euh, impact bu mu am bi muy am économiquement su le plan économique day dal ñëpp alors que nous sommes dans un pays boo xam ne on a besoin de travailler on a de. de, de, de travailler pour que nous atteignions nos objectifs. Économiquement, ça ne va, bon, c'est dur sur le plan mondial et tout, mais il faudrait que les gars il faut que nous liggéey mi am na ci parti bu mu faree kii am na ci parti bu mu faree kenn am na ci parti bu mu faree mais nañ jéem a toog waxtaan Macky na na woo opposition bi ministre de l'intérieur ak gars yi ñu waxtaan man mii la dama lay wax man je suis ñoom laa faral mais nag aussi affaire bi ni muy doxee nii man d'accorduma ci ak ñoom